Diop qui est là. On a de Monsieur Moustapha Dian, PDG de Sénat Vision, que je vous demande d'applaudir très très très fort Sans plus tarder, nous allons commencer la conférence de presse, n'est-ce pas de passer la parole au président directeur général de Sénat Vision, l'homme fort, celui qui aime la culture, celui qui aime relever les artistes au plus grand rang, celui qui souhaite rassembler les le décembre à Dakar Arena le hip hop Galsen à Dakar Arena n'est-ce pas PDG. yes salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam et ñu am mbégte vraiment mbégte bu rëy boo xam ne bu ngeen ko natt rek euh, weesu na fa ci ñëw fii Kaolack dañuy tàmm wax tout le temps mooy ville bi gën a hip hop Sénégal loolu ñun daabu leen si firnde lañ ci. parce que bi ñuy joué fii 95 96 alliance boobu defe naa game bi am na lu mu demee woon et à chaque fois day am porté boo ñëwee da nga fiy fekk public bu am doole. lii da koy wane parce que da nga gis ne dëkk culture dëkk boo xam ne cosaan ak aada ñoom dafa am fenn fu mu leen toll fu kawe dëkk bi yëpp la de manière donc moo tax xam naa ñu ngi lu ci xaar bi parce que waroon nañ teew depuis 15 heures yéen a ngi fi di organiser di defar pour mu jàpp wala mu taaru comme taaru Rab Gan Sène donc ci noonu lay vraiment nuyu madame la directrice pourquoi parce que suñu kër lañu ñu invité fii mooy këru artistes yëpp kon moom ndokk bi ko suñu borom mayee moo am état d'esprit yi am philosophie yi gëm ne fii këru artistes yi la da koy ubbil artistes yi jox leen ay opportunité ba lu ñu fi bëgg a def ñu def ko fi riifu wax nañu lim ci daj ak euh, jéego yi mu ci def yëpp ba luy taaru donc ba tey moom mi ngi ci liy taaral game bi di taaral hip bi mais la culture d'une manière générale madame la directrice merci beaucoup merci parce que li tax xëjten nga taxaw taxawaay bi noonu la sa ministre de tutelle di def Aliou Sow di ñu remercier bu baax a parce que acte 1 bi moo ko teewoon acte bi convention bi bu ñu ko signé ba Taaru euh, Abdal Sène di dugg biir arena am na jéego yu mag yu mu ci def centre yu mel nii dañ ko war a dundal et que yu mel li ñuy organiser mënoon na ko defee biir këram biir ëttam biir néegam fu mu ñu woowoon rek ko noonu fekk mais bi mu ko génnee indi ko fii dafa delloo buum ci mboy mboy xam na cëram xam na li ko war fonk na aar respecté na ko moo tax mu mu indi cëralee la lu mel nii donc lu rëy la ci ñun PRG Show nag comme turam quoi taaru rab daal seen ñun liñ ñu defal PBS defal ñu ko su ay mag defal ñu ko loolu rek la ñuy defal game bi nouvelle génération dañu am obligation ak rôle organisé par le hip hop affaire yu am solo prise de risque ak prise d' initiative foog acteur culturel bu nekk di ko def ñun ñoo mën a taaral game bi ñoo ko mën a rafetal ñoo mën a fexe ba musique bi egg am dayoo yu bari dañuy def dañuy dem fu ne ci àdduna bi dañuy gis li xew fu ne da ngay def ci salle yi gën a mag muy Bercy muy Zénith muy Olympia muy Bataclan muy Cigale muy Élysée Montmartre foo mën ci dem da ngay gis ne su Sénégal amee infrastructure bu mel ne euh, Dakar Arena et que du temps wala joxuñu opportunité artistes yi pour ñu dugg fa def fa concert defe naa du safee parce que defaluñu ko pour pour pour pour rap yi wala jënd yi dañ ko def pour l'écosystème et l'industrie culturelle donc le ministre de la culture a compris son excellence aussi le président de la république a compris ci suñu dajee est palais nga xam ne moo indi wax bi ak coow bi ñun suñu borom dafa def ne dañu bokk ci nit ñi gëm ne le rap et la république dañuy war a toog ci taabal waxtaan. foog ñu waxtaan foog ñu toog seetante xalaat échange boobu bi mu amee ñëpp gis nañ jéego ak taxawaay bi ci riifu am tey su ma ñëwul biir Kaolack wax ko ci ay diggi mbokkam wax leen ko yéen ci ay fansam ay am di jàngam xëy na du safe moom ñu bëri ñoo nekkoon foofu tu mais bi ñu génnee mu am polémique gis nañ taxawaayam moom ci biir TRG show kon bokk na ci li koy jëmmal li koy dooleel li koy suuxat ba ñu naan acte deux am vision wu am acte ba dix ba acte vingt am na actes yoo xam ne joué ñu woon ci TRG acte de ñu ngi ciy joué ñu bëri fii Kaolack déjà am nañ fi benn moo jóob joué wul woon daaw te ren day joué bu ñu fi jógee ci moom la ñuy dem importance bi ñu jox Kaolack aussi jox ko hip hop Kaolack moo tax ñu tànn fii ñaari artistes. daaw aussi naara bi joué woon na ak Rifu ren aussi ñaari artistes joué waat nañu day wane ne c'est une ville hip hop ville la boo xam ne mënoo fi dugg ba génn fi te doo wax ci kër gi doo wax ci état d'esprit caar ci jàppale ak dooleel écosystème wala industrie hip hop dama koy big up bu baax a baax rapport la fii la dëkk te bi ñuy def waxuma taaru rap Galsen ak euh, bi ñuy def euh, bi ñuy def euh, rap Galsen à man ak Thiat ñoo àndoon ci ambassade bi lu nekk ñu daj ko pour que artistes yi visa dem le choix de de de Rifo c'est artistique en premier nit ku mën rap choix de maturité la parce que dafa gëm li muy def am ci conviction am ci pas-pas fulla gi bëri te fulla bu bëri ci musique dafa am solo parce que day tax non c'est important artiste bu am fulla la artistiquement am fulla artistiquement mooy sa liggéey da nga koy fulaat fu mu nekk nga jox ko dayoom jox ko àqam bu fekkante ne seen moo tax moom la ñuy jàppee artiste bu artiste jeexee nag humainement parlant nga gis ne nit bu baax la. man ak moom wax seq waxtaan ñu bëri peut-être ah bu ñu ko soree mën nañ ba a understand kan mooy Riifou da nga koy jàppee l'enveloppe mbubb mi muy sol apparence bi ak lim lay won te te dafa wute ak nit ki tu vois mais boo échanger moom da nga comprendre ne yërmande bu bëri la. am na yéene ci artiste Kaolack soo ko waxee moom mi ngi xool nan la ci boole beneen ku nekk Kaolack boo ci boole woon kii dina ndox boo ci dolli woon kii dina baax loolu bu ko nit melee ci game bi rek mooy am na ouverture ma profité pour remercier ko bu baax et que li ñuy xaar ci yéen en conclusion mooy ngeen mobiliser wu parce que jël nañu seen artiste boole ko ci benn jongante boo xam ne du jongante sax parce que du du concurrence dama ñu foofu euh, di di def concurrence rap Galsen moo fay daje parce que hip hop am na cinquante ans su ñu nee hip hop am na cinquante ans Sénégal war na ci revendiquer trente quatre ans d' action trente quatre ans d' yooyu ay prise de risque la ay organiser concert production fu nekk mu egg fa yéene bi ñu am mooy suñu rap dem ba def Bataclan def Zénith def Bercy hip hop Galsen bon ñun suñu génération laay wax ah, parce que Dabrens amoon na unité tey man manqué ci game bi game bi amatul une unité gars yi boolootuñu waaw ñun daam ren dañ daan xëy dem ndekkee ci kër Bamba ji Fall jóge kër Bamba ji Fall dem añee kër Zaman kër Black Mbolo kër Jant bi puis France ainsi de suite ainsi de suite tu il faudrait que gars yi comprendre ne c'est une famille hip hop famille la hip hop hip hop euh, notion de représentativité daf ci am solo mooy li riifu def ok ñëw leen mënoon na ko defee Dakar mënoon na ko defee feneen mais xam na ne népp lu mu mel wala fu mu egg wala fu mu toll Kaolack moom ko def kon su foree dara day dellu si waat Kaolack bokk ko ak waa Kaolack ci ay biir këram ko xam ay mbokkam lañ koy fekk signé contrat bi woon leen ne day dem Dakar Arena fi muy dem nag les jumellement ay motards dinañ ci dellu si waat parce que dix-huit mille places voire même vingt mille li ñuy xalaat ci yéen mooy mobilisation ngeen gunge seen artiste riifu kese mën na duy cinquante car wala soixante car yu jógee Kaolack ñëwal ko moom parce que liggéey na ci game bi liggéey na ci hip hop liggéey na pour yore drapeau euh, hip hop Kaolack su soxlaa tey gaa yëpp génn cat ba cat gox ba gox ñëpp génn gunge ko parce que loolu mooy force am loolu mooy doole. ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax du ma monopoliser débat bi lu bëri mais wax leen rek ñu ngi leen di jox rendez-vous le 23 décembre yéen ñëpp Dakar Arena pour le TRG show merci. Thiambo, je me présente, c'est Madame Abitay, je suis la directrice du Centre régional de Kaolack, qui a l'honneur de représenter le ministre de la Culture et du patrimoine historique ici dans la région. Et comme je l'ai dit tantôt, permettez-moi à l'ensemble mon propos de vous souhaiter la bienvenue ici toute la délégation de Tazab ici à Kaolack pour faire la signature de la convention qui va vous lier à Art Vision, à Art Vision. Et pour le Sénat Vision, surtout sur le choix porté sur Rufou, qui est une référence de la région de Kaolack. Il a toujours défendu les causes des populations kaolackoises, des artistes kaolackois, à travers sa musique et ses, ses On a pour preuve, vous avez vu le centre tout aux alentours. Il a eu à faire des journées d'investissement humain pour vraiment pour rendre ce cadre vraiment agréable. Et encore une fois, présenter nos félicitations à ah, M. Moustapha Dieng qui a pris cette grande initiative en vue de rendre au rap sénégalais ce second La première édition a été une grande réussite. Et là, nous saluons l'ouverture qu'il a eu, l'ingénierie qu'il a eu de vraiment s'ouvrir à Kaolak aux autres régions du Sénégal. Ce qu'on avait tendance à remarquer, toutes les grandes manifestations se limitaient à Dakar. Donc, le fait d'impliquer les populations kaolakoises, notre de renom, monsieur, à travers ce programme, monsieur Ricoutier là, euh, nous, nous allons vraiment un honneur pour nous de, de, de recevoir ici délégation de Taro Delsen ici à, à, à Kaolack. En tout cas, merci. Plein succès pour cette deuxième édition. Et soyez sûrs d'une chose, nous sommes à vos côtés pour vraiment la réussite de cette activité. En tout cas, merci. Merci beaucoup, directrice. Alors, sans plus tarder, nous allons enchaîner la conférence de presse avec le mot de bienvenue du directeur artistique du Grand Rifou. Comme que je vous demande d'applaudir très fort. Hey, nice. Bonsoir, euh, bonsoir Kaolac. Moi, je suis venu hier. Euh, depuis euh, un moment, je suis le directeur artistique de Rifou. Euh, je m'appelle Hope. J'ai déjà travaillé avec euh, beaucoup d'artistes de renom ici au Sénégal. Et le choix de travailler avec Rifou, c'est quelque chose qui, est noble. Et c'est un grand artiste. Mais vraiment, je dis chapeau à Tafadien euh, qui n'a aménagé aucun effort pour la culture en général euh, ici au Sénégal. Depuis un moment, on est en train de le suivre avec son équipe. Euh, euh, il est quelqu'un qui est en train de faire un travail extraordinaire. Chapeau à lui, mention spéciale. Et euh, le succès de Tarou Rap l'année dernière, tout le monde l'a suivi. Ça a été quelque chose qui est extraordinaire. Mais cette année, avec Rifou, on va amener de la rénovation, on va redoubler d'efforts pour euh, vraiment continuer à, à satisfaire le public kaolackois et le monde entier en général qui nous suit. Bienvenue à toute l'équipe de Sénar manché Mention spéciale à Tafa, l'initiateur de ce noble projet. Et big respect à Rifou qui m'a donné l'occasion de travailler avec lui. One love.